mbokk yi asalaamaaleykum alxames tollo fukki fan ñaar ci weeru novembre atum ñaar ñaari junneeg ñaar fukk Euh, ngi leen dalal ci seen émission bi nga xam ne dañ ko amal saa yu nekk rek euh, muy li nga xam ne moom mooy euh, jàmbakatan jàmbakatan fii ci diwaanu bët saalimi réew mi wax nag fii nga xam ne mooy GMS groupe média du sud ñi waxtaanee tey ji thème bu am solo dem ci njàng ak njàngale mi muy ubbi tey jàng tey ndax nekk la li nga xam ne dëggu na ci diwaanu bët saalimi réew mi ngir waxtaanee ko dinañ ànd ak suñu chroniqueur muy kenn ki di docteur Benoît benoit tin mi nga xam ne moo ngi fii sociologue la nekk ca université Université Assane Seck bu Ziguinchor nekkit chroniqueur ci émission jàmbakatan euh, ci ndeyjooram ñu ngi fa am ki nga xam ne mooy El Hadj Arthur Diagne mi nga xam ne moo fi toogal consomériste yi fii ci diwaanu Ziguinchor Euh, ñu ngi ànd ak Léonie Gomissit mi nga xam ne bokk na ci RADDHO ñëw nag teewal fi euh, li nga xam ne mooy rencontre africaine des droits de l'homme ci euh, jotaay bi nekk chroniqueur également ci biir émission bi suñu gan gi nag mooy Honoré Manga mi nga xam ne it syndicaliste la dëgg la waaye it féet na ci ñi nga xam ne ñooy waaye juru ndongo yi nga xam ñoo nekk ci l'enseignement privé bi fii ci diwaanu Ziguinchor dinañ ci waxtaane lu am solo ndax li nga xam ne lañ koy waxtaane mooy ñaari ponk la benn mooy li nga xam ne lañ tuddee Euh, ubbi tey jàng tey mu soxal ñëpp mais beneen ponk bi nga xam ne ñu ko waxtaanee mooy coow li nga xam ne ñu ngi koy wax ndax ku ne ubbi tey jàng tey day fekk euh, xale Sénégal yëpp am droit dem ci école di fa jàngee waaye dafa mel ni comme am na coow bu nga xam ñu koy dund muy rek diggante école privée yi ak ñi nga xam ñooy waajuri ndongo yi euh, école privée di topp waajuri ndongo yi ñu di fay ñetti weer yi nga xam ne jànguñu ko ndax mbas mi di Covid 19 waaye ñu bëri ci waaye waajuri ndongo yi ànduñ ci ndogal bi ni mel nañ ci waxtaanee ci suñu ñaareelu xaaj waxtaan bi ànd ci syndicaliste bi nga xam ne moom moo teewal enseignement privé moom dinañ ko woo ci dinañ jokkoo ak moom ci buumu euh, jokk waaye muy téléphone euh, muy Noël Mendy waaye nag laata boobu dañuy ànd ak yeneen ñi nga xam ne ñoo tënk njàng njàngale mi ki suuf ak ci kaw muy CODEC muy euh, Kéba Cissé dinañ wax ak moom ak it ki nga xam ne mooy mu ngi nekk moom moo toogal waa COSE ci Ziguinchor dinañ ànd ak ñoom be seet njàng njàngale ubbi tey jàng tey boobu nañ ko dundee tey jii kon nag pour commencer rek ñu ngi nuyu Benoît di ko dalal ci waxtaan wi Benoît salaamaaleykum maaleykum salam. waaw mais euh, professeur ba yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm maa ngi ci professeur temps de ah temps université ñoo ngi ci colloque <laughs> international depuis démb uh-huh. donc ay kàngam ay euh, vraiment ñoo xam sen seen xam-xam dafa màcc ci euh, défaillance dans les organisations moitié ci justice bi moitié ci école bi moitié ci entreprise donc loolu ñu waxtaanee depuis dembe. donc tey tamit ak suba uh-huh. ah, ñoo xam ne nañ Afrique jóge nañ Europe vraiment maa ngi leen di nuyu euh, te di nuyu aussi euh, étudiants yi ñu jàppale ci colloque colloque international c'est tous les deux ans on a un jour on nañ invité directeur de laboratoire comme ça vraiment mu wax nous, euh, mu nous ñu laboratoire de recherche en sciences sociales. donc voilà je suis Arthur Diagne chroniqueur je suis nuyu sama Léonie di nuyu monsieur Honoré Manga Honoré qui nous honore de sa présence. très bien donc et puis am na un ko en plein colloque on avons commencé 8h30 donc n'a euh, coupé courant alors que nous avons un courrier adressé au chef de réseau chef régional donc nous, euh, on leen voilà ah, non je ne <laughs> Arthur mais Arthur nous ici euh, comme professeur Benoît di nuyu madame Léonie di dalal suñu invité honoré eh, di wax professeur Benoît vraiment lolu mom ñaaw consommateur yi tok ngay wax lolu hmm. lolu mom dañ koy naqarlu. lolu mom il faut que le directeur régional Sénélec <laughs> daal di koy dégg ni ki man mom naqarlu na lolu parce que ñun zéro coupure lañ ñu wax. mënuñu hmm. di fay ñu ñuy couper. très bien ñun consommateur lolu moy suñu devise zéro coupure. mënuñu hmm. loo di fay sa xaalis ba pare ñu lay couper wala bu ñu lay couper bok ñu teel la avertir nga mën a jël say. say say say matuwaay. très bien waaw jërëjëf El Hadj Arthur Diagne asalaamaaleykum soxna Léonie euh, Gomis. maaleykum salaam Cheikh. waaw ñu ngi lay dalal ci jotaay yi. waaw di leen nuyu di jëkk wax Arthur ni seen consommateurs yi daal liggéeyuñu. Mhm. parce que bu ñu liggéeyoon Senelec du coupé. boobu laa koy may. bon ma nuyu leen yéen ñëpp nag commencé ci Cheikh euh, docteur euh, Benoît Tine mhm. moom El Hadj Arthur Diagne. Mhm. Nous aussi nous invité honoré Nous sommes auditeur nous euh, réseaux sociaux Nous aussi directeur général bi euh, non non hmm. GMS <laughs> <laughs> monsieur Alassane techniciens GMS nous sommes merci beaucoup Manglay le la euh, si invitation bi même si j'ai été pris de cours euh, c'est vers les coups de 16h30 euh, je crois que vous m'avez appelé ngamay wo ngamay invité si émission bi et dama def tout pour nous, parce que li ngay wax ni affaire jangalé ndax ma soxor mhm. motax ma il faut ma def tout pour ma ñeu di nuyu tamet seen chroniqueur bi docteur Benoît nous t'amet le chroniqueur Arthur qui mhm. euh, nga xam défendre euh, consommateurs Nous avons pas ñëpp consommateurs nous vraiment ñu ko ñaax parce que nous bëri mu ngi am Nous avons duñ mhm. euh, ma sœur Léonie chroniqueuse di nuyu tamit euh, enseignants yi yëpp ñi nga xam ne euh, ñooy yor euh, ñooy soldat xam-xam bi nga xam ne def nañu lu rëy ren

topp na ubbi tey jàng tey ba xam école yi fu ñu ci toll dañuy ànd ak euh, Eva ci àllu reportage mu baaxee ñu li nga xam ne moom la gisee ubbi tey jàng tey tey jii ci diwaan ba Saalum réew mi ak régie ci weeru mars la ñu tëjoon l'école yi ndax mbas mi gannaaw ba ñu amee kaay njëkki fii ci Sénégal wante tey 12 novembre mu doon bés ubbite l'école yi li ñu seetlu ci l'école yi mooy xale yi ñëw ñu bu bari mu doon li nga xamante ne day mettre à l'épreuve concept biñu ñu tuddee ubbi tey jàng euh, jang bi fi ci CMT Amilcar Cabral mun naa né mu ngi door ci ay yu bax euh jafé jafé fan la nek moy ci élèves yu quatrième yi yi nga xamni depuis mois de mars bañu paré ba tëj école yi kenn ñëwatul biir école naan man damay euh langue bi moy lu allemand portugais espagnol ak arabe si contexte binimel mouvement ancien élève yi jangé won ci l'école yi nek fi ci Santhiaba daa di joxe ay matériel lu melni ay fourniture ak ay matériel sanitaire ci l'école yi Seydou Kane ak Francisco Carvalho jubli bi moy euh, fi lañ jógee donc euh, c'est tout à fait normal que ñu ñibbi si tey bu ñu amee dërëm ñoo partage ko ak suñu doom ak wa gox bi lool mo ñu pousse créer mouvement bi faut encourager ndaw pour réussir il faut commune bi commune, il gouvernement bi tamit. bon Nous avons xayma presque 3 millions la composé de masques de lave-mains de euh, de de papier de cahier et de masques aussi voilà. ba na danañu xaar fi ay fan lata jang bi di commencer ni ko waxee ci académie bu lii ñu seetlu ndax mënoo jàpp ne ubbi tey jàng tey am na kon nag euh, ñu bàyyi rek Arthur Diagne mu ubbi baal bi euh, Arthur noo jàngatee tey jii ubbi tey jàng tey fukki fan ak ñaar ci weeru novembre. waaw je pense que proviseur bi ñu interview wax na ko. Euh, principal bi principal bi nee na moom déjà CMT bu ñu joxee exemple rek nee na commencé wuñu parce que lu tax commencé wuñu emploi du temps amaguñu ko. ndax élève 4 quatrième yi choisir guñ leen sen langue té lolu je pense que faute bu reuy la si administration scolaire bi nga xamni mo moo ëmb Ziguinchor ndax 9 mois de vacances lañu amone parce que année scolaire 9 mois la mais 9 mois de vacances dañu amone bo xamni ki mom la élèves yépp tok té je pense que lu gëna ndaw moy ñom sen walu bop war nañ am coordonné wu élève bu ne même bu féké ni ki dañu arrêté école bi ci jamono jo xamni dafa tomber mbas am mënoon nañu woo parent d'élève bu nekk woo ko pour ñu daal di mun a xam nan la ñuy defee pour jël les langues mhm. parce que choix de langue yi loolu du loolu problème te encore ubbi tey jàng tey bi si lu ma gis peut-être école yi la ñu wone mais boo xoolee même yeneen écoles yi sax ubbiwuñu tey jànguñu tey parce que déjà si Ziguinchor man boog visite ban laa def Ziguinchor si école yu ma jot a dem gisuma fa ubbi tey jàng tey que ça soit dans les écoles privées que ça soit dans les écoles publiques mhm. peut-être nous regrouper élèves les écoles privées lu def c'est élèves dans leur salle de classe il faut régler leurs problèmes personnels avec la direction parce que nous aussi ils ont leurs problème nous ñu régler avec leur direction mm-hmm. les enseignants des écoles privées comme les écoles publiques aussi nous am les régler avec les inspections mm-hmm. comme avec l'IA et l'IFB, nous ñu régler bo demone ba lycée yi sax même lycée yi sax ubbi tay jang tay bo man constaté wumako ci parce que j'ai fait le tour de deux lycées muy le lycée Dinaabou ak le lycée de Djibok gisuma fa ubbi tay jang tay defna 3 CM yo xamni ki visiter nako defna 5 yo xamni ki c'est des écoles élémentaires yo xam c'est des écoles élémentaires publiques def deux écoles élémentaires privées visiter ko mais gisuma fa ubbi tay jàng tey jërëjëf jërëjëf El Hadj Arthur Diagne Euh, Benoît xam naa ne amoon jot parce que yaa ngoon ci colloque bi waaye nag loolu terewul am euh, waajur nga am nga ay ay ndongo est-ce que mën nañoo jàpp ne euh, ubbi tey jàng tey lu ñu mën a gëm la au Sénégal. c'est vrai parent d'élève la ci suba si bala may dem colloque bi yóbbu naa samay doom fële ci école benn école privée la mhm. te mën naa firnde ne que foofu ñoom vraiment école élève yëpp ñëw nañ enseignants yi yëpp école privée la de enseignants yi ñoo côté bon, nous ñom commencé won nañ jang xaw nak ban genre exercice est-ce que euh, mënu avons wax né mascarade c'est vrai que euh, écoles privées sont réputées être plus sérieuses mais euh, on peut pas il faut voir aussi les trains qui arrivent à l'heure hein amna ñoo xam dañuy malgré que au Sénégal il y a des concepts qui sont parfois sont des concepts vides ou bien jàng tey man dama xamul lu des ñu koy ñu créer concept bon so so ubbee c'est pour aller étudier mhm. mais à condition que les conditions soient remplies gis nañ ko reportage Eva ñu nuyu mais école pratiquement euh, désherbé mhm. pourtant on est resté à on est resté neuf mois mhm. on est en novembre nawet bi c' vrai que nawet bi moo ngi jeex en début octobre yoon mais mënoon nañu ko nettoyer mënoon nañu mobiliser jeunes yi wala ñu ut euh, ay manœuvres yoo xam ne mën nañu nettoyer euh, école bi euh, te en tout cas école bi ma gis. moo ngi ko def ah, bëccëg ndar kam gis ma fa kenn gis ma seenu ma fa benn benn benn élève muy CMT muy feneen. ba pare yow soo joxe donc kay da nga koy joxe avant. Euh, la rentrée comme ça nous si nous ñu utiliser la voie, nous mën utiliser utiliser masque mais ngay joxe don juste le jour de la rentrée des classes je pense que c'est un peu euh, contradictoire soo ko vraiment vraiment ñu utiliser don c'est euh, d'encore nga indi avant mhm. pour que jeunes yi xale professeur qui instituteur ñu mën ko utiliser mais en tout cas il faut faire attention avec ces concepts là ku jóg rek créer concept ça sonne bien Oubité, tey voilà hein, alors que souvent ce sont des concepts vraiment euh, vides merci beaucoup professeur Léonie euh, est-ce que Oubité, tey le lu concept le bu baax la wala nu e-, exactement merci cher Je euh, bala may tontu ci lolu ma am apporter un qui euh, éclairage ci Arthur lu mu wax euh, que c'est une faute le fait que choisir ñu élèves yi defuñu choix mm-hmm. ça peut c'est pas une faute dans ce cas-ci hein. si une circonstance mënoon nañ wax ni faute la mais c'est du faute parce que vous le faites ni dañu arrêté école yi en mars en mars je crois Légui nous arrêter arrêté école les élèves ne sont pas revenus élèves troisième yi rek ñoo revenir alors que élèves cinquième yi ñoo naroon a def choix pour les matières en quatrième donc ils dellu si wuñu donc il fallait que nous xaar ba nii nous na ñoo xamante les devants def mais ce n'était pas trop tard en mars buñ ko jëlul mënoon nañ ko en avril mai ou juin mais malheureusement élèves ils ont si ñi waroon a des choix boobu choix, ils wuñu da nga wax waxu téléphoné xam nga dafa des rek parfois ñuy ek xam nga éclairé soit a nous élèves sont que par classe nous cinquième est-ce que a des moyen physique pour nous, pour nous, parents pour nous ñëw parce que déjà élèves élèves voyager est-ce que li nous, ci c'est une réalité c'est parce qu'il a dit que c'est une faute c'est important euh, euh, mm-hmm. parce que c'est pas une faute c'est une situation conjoncturelle les élèves n'ont pas fait le choix au dernier moment donc c'est des choses qui peuvent arriver mm-hmm. donc pour le concept man damay rejoindre euh, docteur je mm-hmm ubbi tey jàng suba dafa amone musu fi am ah, donc lutax ñu dem bay wax waxu ubbi tey jàng c'est parce que fen dafa am fo xamantene ne dañ fa laj té affaire bi bo xam gisee ni élèves yi bu ñu ubbee tout le monde est responsable dans cette histoire l'État est responsable les enseignants sont responsables les parents sont responsables mhm. parce que parents yi xalé dañuy dem école vacances duñu ñibisi té xam nañ ni dañuy ubbi mais xalé dañ fay nek ba weer bi dañuy soga soog ñu naan waaw dañuy xaar ñu jëndal leen ay lii ak lii mais mhm. daf ko dem vacances xam nga kañ la école di ubbi nga ñëw mhm. enseignants yi dañuy ñëw premier jour deuxième jour ñu ne il n'y a pas d'élèves ñu toog mhm. alors que élèves yi bu ñu gisul aussi enseignants yi ci école yi du ñu ñëw état bi am na deful moyen parce que ense école yi ñooy jël en charge des désherbage da xam nga parfois dañuy créer ay situation yoo xamante ne après duñ day dépasser nit ñi. très bien dañ ne APE ñoom ñooy désherber. APE parfois APE ban xaalis lay désherber APE pour mu désherber day ñëw laajte chef d' établissement xaalis pour mu désherber. Mhm. donc loolu du engagement APE. très bien loolu établissement bi la bu amul xaalis kon du du du ko teel a def. kon bokk na li war a tax rek xale yi di tardé. tàmbali seen jàng di tardé surtout que surtout le fait que nous ayons des vacances nous sommes les très bien une responsabilité parents parents yi. Euh, honoré yow syndicaliste nga. Nous avons ubbi de jàng parce que un combat aussi voilà. Wow. merci beaucoup euh, si ces questions. Bobo. man contrairement aux camarades euh, qui sont là qui qui parlent de concepts vides, je crois que le concept. voilà concept bi dafa am lu tax ñu Nous ko fii lu tax indi concept bobu dafa dem demone ba ben jamono ñu gis euh, ouverture école bu et dañuy tok ay fan bala ñu ñu tambali jangale bi mm-hmm. motax bu mu gisé lolu mu xamné si euh, quantum horaire bi euh, ñu indi concept bi ce n'est qu'un seul concept ce n'est qu'un concept xam nga ñun approprié def comme nuñ ko gis nga concept bi moy buñu ñu tay ñu mëna jang tay tey. défi quoi waaw loolu mooy loolu mooy norme bi. Mhm. lool moy norme bi c'est vrai que concept bi boko xolé da ngay naan lu tax concept bi parce que normalement bo ubbee da nga nar jang mhm. mais malheureusement du lool moy xew Sénégal da ngay ubbi tay da ngay ubbi tay nga toog ay fan bala nga ñew jang bala nga ñew jang lool du yoon. très bien lool du yoon mhm. kon. Euh, euh, concept bi amna raison d'être tay fu mu ñu toll ni léegi nak ñun ñoko nara nar approprié jël ko def ko suñu bopp euh madame Léonie lu mu wax ni wax na c'est la la responsabilité elle est partagée elle est partagée dans la mesure où fu nga xamné euh inscription déjà mois de septembre lay commencé mois de septembre mais parents yi souvent ñun parents yi dañuy xaar ba euh, début année scolaire ouverture bi ñu doog a inscrire suñu doom mhm. mais bon inscrire sa doom du mëna duggu classe parce que inscription bi da lay permettre day permettre administration bi mu établir liste classe bi. gis mais ku inscrirul administration du am euh, classe yi le la classe. bu nga bu nga ki il faut nga inscrire d'abord ñu jox la benn papier nga dem ci surveillance bi ñu duggal la ci benn classe mhm. légui inscription bu amul classe même si ministère dafa a arrêté mu nan inscription. Euh, mais on sait que dans la réalité munul ah c'est contradictoire c'est contradictoire sachant que du doigt les dysfonctionnements du système c'est-à-dire que oui il y a vraiment euh, n'est pas encore en place pour que nit ñi a mhm. affaire histoire de inscription et école tout ça ça fait que au contraire ils ñom dañuy communiquer sur un concept derrière, ils sont les principaux responsables. Les responsables sont partagés, partagés mais les principaux responsables. Arthur, professeur, professeur, considère, vous n'avez pas ñuy doog indi concept boobu dafa fekk dafa am lu fi parce que amoon na benn instant y avait les grévistes. les professeurs de daan taxaw di demander réclamer leur qui. ko nous comme facilitateurs pour négocier de négocier entre l'État et les syndicalistes. Vous mu négocier entre l'État avec les syndicalistes mu daa un terrain d'entente pour briser boobu loolu daan am chaque année si la indi ubbi tey jàng tey ne année bi année ubbi tey jàng tey la looloo tax concept boobu daal ñëw parce que chaque fois boo xoolee tey ñoom sax seen bopp considère dañuy def sax tournée si école yi mais bu ñu defee le constat dañuy gis ne ki ubbi tey jàng tey bi c'est pas réal c'est pas réalisable ah bon munul nekk te te mënul ubbi tey commencé tey mënuñu loolu dafa musul nekk même waaw musul nekk waaye mënu mënu ko am mënul nekk même en Europe mënul nekk Non, nous Voilà, les, les professeurs euh, ne sont pas prêts. Après les cours, les cours, on les prépare. Il faut qu'on dise la vérité. Les cours, on les prépare. Un bon professeur prépare les cours. Tout allait bien. les Arthur mu Arthur.

Il faut les condamner aussi parce que je leur dis que yon bu élèves yi ñëwul sax yeen war ngeen ñew da ngeen wara pointer pointé dans les écoles day am liste honoré nga démentir moi si c'est chaque jour dañuy am liste de présence pour mhm. les enseignants bu ñu ñëwee dañuy émarger tous les jours ils non dañuy émarger pour voir c'est leur assiduité aussi parce que depuis jour euh, ils euh, école commencé l'assiduité, ci lay commencé donc c'est contrôlé par exemple donc autorisation ça commence du moment où nous dañu mhm. donc euh, dysfonctionnement qui concept donc concept vide comme nous. <laughs> <laughs> mais de façon générale mooy ñoo xam ne dañu ñëw tamit ñoom dañu ñëw tey suba duñu ñëw donc c'est général jërëjëf léegi euh, léegi léegi professeur dañuy ànd ak euh, waa régie ñi seeti Kéba Cissé lu tax ñuy jël ko moom mooy coordonnateur lépp kuy directeur école ci département bu Ziguinchor mën nañu wax tey ji jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci bis ni ki tey ñu wax xale yi waroon dugg classe tàmbali seen jàng ndax mu loolu antu na am déet moom mën nañu wax lan moo ko waral kon ñu ànd ak waa régie euh, mën a waxtaan ak Kéba Cissé Kéba Cissé salaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu di la fay. jërëjëf ñu lay gërëm di le euh, président CODEC bu collectif des directeurs d'école du département bu Ziguinchor est dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit novembre est-ce que que vous avez dit département bu Ziguinchor que yi ndaw élémentaire effectivement vous classe te mais xam nga euh, confirmer ni dit que vous avez dit parce que comme je ko émission. On a leen ni reprise bu ren day nekk tamit exceptionnelle parce que l'unité des écoles école yi situation particulière nous ñu pas ci encore ren pour ubbi école dans des conditions exceptionnelles il est évident que fu nous toll nii école yi nekkuñu en train de am na école yoo xam ne nettoyé nañu désherbé nañu am na école yoo xam ne désherbage yi des na tuuti mais lu ñu mën a remarqué que école élémentaire yi que dans le département de Ziguinchor yëpp Le personnel enseignant bi en place maître yëpp ñëw ñu bon am na ñoo xam ne le protocole sanitaire jot nañ ko respecté parce que lu ñu yoroon daaw des na ñu complété ko mais ñu bëre protocole sanitaire bi jotuñu ko mettre en place loolu tax na nekk na première difficulté parce que ak nu munti demee pandémie bi ñu ngi fi dañoo waaw école bu nekk war na préparer dispositif boo xam ne moom mooy assurer des mesures barrières parce que bu mesure barrière bi amulee

parce que buñu dotation encré ak yéen ñi parce que xam nga école élémentaire publique ci état bi la gëna a yaakaar pour mu mën a euh, am matin bu doy pour mën a maître yi mën a jàngale normalement mais parents yi ñu ngi def lu ñu man maître tam ñu ngi def lu ñu man pour accueillir élèves pour que ñu mën a au moins assurer les premiers jours d'enseignement pour que xale mën a ñëw mhm. mais côté mesure barrière euh, on reconnaît que ci école bi am na lu def très bien

le chargé de communication du ministère de l'éducation nationale. Euh, muy niki ni ki wéy Moustapha Diagne. mu ministère bi fay, joxe accompagner les écoles si les masques président Kodek bi mu dit di koy expliquer ni ki ñoom ba léegi jotaguñu. xam nga que wax faute parce que c'est des c'est des manquements, parce que nous avons préparer, On avait neuf mois, une année scolaire entière, année scolaire neuf mois. Là donc année scolaire je man sais année invalide année blanche mais neuf mois nous avons ko des région des ministère écoles élémentaire mhm. dans ce pays nous avons envoyé nous directeur nous avons envoyé en temps réel Nous avons gardé nga problèmes problème désherbage daan moo tere mairie yi ñoom ñoo yor les écoles élémentaires vrai ou faux donc directeur d' yi mais mairie yi war nañ mun a toog ak école élémentaire mais damay joxe le cas de Dakar Dakar amu fa loolu Dakar ñoom dañuy ñëw mun naa ne concept ay hybride ma intéressé mooy sama région bu ma nekk mooy la région de Ziguinchor le département de Ziguinchor tey bu ma gisee ni ki la mairie de Ziguinchor teelul jël les devants pour nettoyer désherber les écoles parce que tijji nañu les enseignants tijji depuis le 5 mhm. mais bu ñu tijjee ba léegi ñoom directeurs yi ñu ngi fa si école yi mais man école yu ma jotoon romba le 5 yëpp gisuma benn boo xam ni nekk euh, ne mairie Euh, a un service d'hygiène ni ni ni ni ni pompe classique pour. Euh, non attends attends pour pour tour, Arthur en fait euh, je pense que rentrer RNB à bi amul enjeu soo nous ñu def communication une surcommunication même si euh, euh, moi classe d'examen Moi, bi ñu reprendre le 25 euh, mm-hmm. mm-hmm. juin. juin voilà juin parce qu'il y avait un enjeu parce qu'il y avait il fallait coûte que coûte sauver l'année. ils ont mis les moyens ils ont fait une grosse communication indi mm-hmm. ay lavoir indi ay masque deux masques même trois masques je crois dans certaines écoles. Un thermoflash et ah, tout indi thermoflash etc. Nous organiser vraiment pour rassurer les parents rassurer élèves qu'il qu'il faut que nous reprendre mais voilà là il n'y a pas d'enjeu on a neuf mois encore ils se disent que bon même si su la guerre, nañu ko rattraper je pense que l'autre tax ba jëluñu matuwaay surtout dans des régions comme Ziguinchor nga xam y a nawet bi macha allah reine dafa euh, dafa dafa baaxoon euh, encore dans les écoles même université sax pareeguñu désherber ah. mhm. Hein? des désherber donc il faut les préparer à temps comme il dit on nañ vraiment jël euh, le mois d'octobre mois de novembre pour préparer tout ça mais dama y amul un enjeu pour le ministère de l'éducation amul ben enjeu pour l'État du Sénégal Ils ne se pressent pas ils prennent tout le temps parce qu'on a neuf mois

Euh, Patrice Colly euh, ñu ngi lay nuyu. allo. oui maa ngi leen di fay. waaw Clément euh, ñu ngi ànd ak yow am vraiment ànd ak yow ci li nga xam ne moom mooy rek saytu fu ñu toll ak njàngale mi bis ni ki tey muy fukki fan ak ñaar bis bu nga xam ne dañu waroon tàmbali njàng mi carrément lan lañ mën a jàpp ci département bu Ziguinchor est-ce que collège yi ñoom pare woon nañu pour liggéey à partir d'aujourd'hui. maa ngi leen di sant di leen jërëjëf ñi ngeen ma permettre ma ma promo prononcé wu bi waaw ubbi tey ubbi tey jàngatey bi moom euh, objectif la woon waaye daanaka y euh, euh, a eu quelques difficultés yu école yi jànkonteel notamment par rapport au contexte actuel maanaam contexte pandémie bi mbas mi mhm. bi tax euh, école yépp naroon nañu am moyen pour doter xale yi ku nekk maskam ku nekk daal li mu mën a fagaru pour euh, respecter lu ñuy naan les gestes barrières mhm. mais boobu moo nekk la difficulté majeure parce que euh, à part dotation yu école yi jotoon ci classe d'examen yi mhm. Euh, écoles yi une dotation pour donc mu les écoles ont été laissées à elles-mêmes Nous, mhm. wut un propre moyen euh, mais dans l'ensemble on peut dire que par rapport à la présence des élèves euh, surtout dans le milieu rural on a senti quand même ay xalé xalé yu bëri ñëw nañu tay école ak enseignants yu euh, téw nañu ci école yi pour jéem a commencer mais difficulté bi mu bi ma la ko waxee rek mooy application des gestes barrières par rapport à contexte bi. waaw mais emploi du temps yi ñu wax noonu est-ce que lépp yemb na pour xale yi mën a jàng parce que wax jàng il faut nga wax emploi du temps ndax lépp taxaw na. ah normalement parce que bon élémentaire maîtrisé wu ma ko mais ci moyen moyen secondaire. Mhm. Euh, chef d'établissement yi jotoon nañu def sax ay formation pour euh, tes ay emploi du temps normalement emploi du temps yi war na mhm. bon j'ai pas pu faire le tour de tous les établissements pour mhm. ma les échos à tous les niveaux mhm. mais je pense que l'essentiel des chefs d'établissement a fini de faire les emplois du temps maintenant euh, problème bi quand quand la élève jot emploi du temps ba di jàng waaw xalé té tey ñëw té emploi du temps est-ce que paré nous pour euh, commencer cours euh, alors que peut-être parrainons-nous pour un cours de mathématiques un cours de voilà mais quand même les enseignants ont, des rudiments pour les maintenir dans les classes ne serait-ce que pour présenter les programmes et les emplois du temps, les commentaires, etc. et les quantum horaires Clément secrétaire général un secrétaire général question bu aussi moy mhm. xalé yu ren def examen amuñu pour ñu def uh-huh. inscription obligatoire da ngeen na seen tribunal ak mairie. ñi bëggoon xam mhm. ban lan ngeen am comme euh, ordre bi nga permettre le que seen waaw ordre bi <laughs> euh, actuellement euh, la priorité est accordée à au droit de l'enfant pour mu ñëw jàngi ak ak xeelefam la mhm. euh, lépp leneen loo lu am gàllankoor beneen gàllankoor bu ci mënta nekk dañ cee teg ci ginnaaw ñu privilégié xale bi mu dugg classe léegi li ci des il faut ñu ñu ñu jëm a topp xale bi pour mu mën a régulier moo tax premier jour yi même inscription yi xale bi su ko amul sax dañoo sant ñun chef d'établissement yi ñi ko accepté xale yi sur la base des listes

Mme Muzi barrières et le protocole sanitaire bi nga koy déplorer un peu Benoît wax ndax askan nañu euh, gouvernement bi classe examen ki gis am comme arsenal mais dafa mel ci ñu lu nga yu yu ëpp war nañu est-ce que and euh, nga waaw lu mu wax la euh, am dotation élève classe troisième yi moom moo fa nekk ba léegi ñi ils ont pu gérer on peut-être desee nañ ba mais am na ñoo xamante à chaque fois xale bi bu ñëwee bu faté bu la na masque da quoi ko koy jox mhm. alors que dañ ko nee woon trois masques yow do ne dama koy jox trois yam ci donc tant que mi ngi am ku ñëw indiwul masque dans quoi ko koy jox mhm donc ben, amna quand même yu jot dess des parce que le conseil départemental jox joxe na euh, ñun par exemple les mairie Adéane joxe na de telle sorte que amna yu des mais du mat pour tous les élèves <laughs> Gelbi bi ak ki on peut jouer sur ce qui reste en attendant par exemple tay la ñu doon oo euh, ak démb di ñëw di laajte lan mo manqué lan ngeen am est-ce que am ngeen li est-ce que am ngeen la donc c'est la c'est la charrue après les bœufs ou je ne sais pas <laughs> mais ce ñu nous a def defuñu ko c'était en amont mm-hmm. loolu dañ ko warona a def lu parce que nous avons fait dañu ouverture pour le 12 élèves même bien avant ouverture élèves sax le 5 bobu nga xamante enseignants yi dañuy dem ak qui euh, euh, nu mu tuddati administration yi dañuy dem école ci la jël disposition accompagner établissement parce que on a un qui euh, effectif bi ñëw mo ëpp effectif classe ou examen mm-hmm par exemple amna ñoo xamantene sen lavoir yi dañoo toj amuñu lavoir mhm. bu amé tam ben wala ñaar ñoo dess. Amna yo xamantene thermoflash bi dafa yàqu et cetera et cetera donc loolu xam nga disposition yi ñu waroon a jël la avant tey wala démb fi mu ne nii dara ñëwagul. voilà euh, loolu euh, honoré dama la interpellé parce que syndicaliste nga aussi euh, ñi laaj la rek ndax Léoni li wax tiital parce que daf mel ni comme mbas mi léegi kenn faaleetu ko loolu mooy un mais ñaareel bi CRD ñu def un mois avant ouverture dit di saytu problème yooyu yëpp pratiquement démb lañ koy doog a def démb muy la veille même de la rentrée scolaire est-ce que loolu pertinent en tant que yéen acteur yi nga xam yéen a autour du système. merci beaucoup Cissé moi on est le manque de sérieux des autorités étatiques man bu ñu ma waxee démb bu ma demee euh, suñu AG d'entrée démb euh, proviseur annoncé ne que CRD bi tey lañ koy def à 15 heures pour la ñuy xam lan la ñu a am lu dul am daf ma daf ma daf ma titel c'est un manque de sérieux mënuñu toog depuis mars ba légui depuis mars au mois d'avril, nous avons un nouveau décret pour l'année scolaire qui mhm. termine l'année scolaire le 12 novembre nous reprend le cours depuis lors l'autorité a eu le temps pour le def CRD programmation le matériel pour que nous distribuions ko ci école yi waaye defuñu ko ba demb demb bo CRD a tay lan ngay ci école bi lan nga fay c'est-à-dire la comédie même visite vous def tay fekk na ma lycée comédie pure defuñu fa ça cinq minutes defuñu fa cinq minutes dañu ñëw duggu Vous ñu côté classe terminale yi c'est manque de sérieux quand mhm. vraiment te ñun lu ñuy ñaan état bi dañ il faut nous protéger enseignants protéger élèves tu ci l'a nous ñëw sax ci Arthur Arthur est-ce que les deux fidèles ni dit un mbas mi bàyyi nañu exposé et tey et élèves et enseignants parce que vous pour les classes d'examen les enseignants dégg syndicats syndicat bu nekk jëkkati nga cadeau artu ministre bi ci risque yi nga xam ne mu ngi dal euh, enseignant mais cette fois ci dégguñu sax syndicat yi ñu wax ci est ce que ñoom ànduñu aussi ne mbas mi jeex Sénégal. non mais c' que démb maa ngi démb Bousso wax na ko monsieur Bousso Abdoulaye Bousso. Ah, docteur Abdoulaye Bousso mi doon wax ni ki way mbas bi jeex presque nañ. Ah. mais ça ne veut pas dire que jeexal nañ presque la wax lu des pour ñu jeexal bëriwul. mais comme jeexalaguñu mais terewul mooy comme lan la syndicat bi wax parce que non xam nga mois. 9 mois nga tok préparé wu loo mois yëpp ñu ngi tok préparé wuñ dara ba dem ñuy doog wax CRD donc c'est-à-dire que même le gouverneur de la région bu muy def CRD ak le préfet bu muy def sen CRD do fekk di ci kaw lañuy ñuy sen sen seen. waaw mais mënuñ def CRD tant que aussi ministre bi wootewul. voilà foofu te ministre bi semaine bi passé lay doga paré sax euh, ñaari fan réflexion. ci parce que mënul won tamit def dara. parce que dafa am lu ko tënkoon gouvernement bees bi aussi moom moo ñëw. mi noonu nag ah, loolu ko tënkoon nag moom non gouvernement bees bi woon kat affaire une semaine teeloon nañu yëg ñoom teeloon nañu yëg xam nga les ministres. voilà non mais les ministres yëpp. mais changé woon sax le personnel administratif. waaw non mais xam nga le personnel xam nga le personnel dañuy ñëw laaj ministre ministre moo war a signé yenn kii généraux des des des ministères mënuñu def yenn yi tant ministère ministre baa fa Arthur voilà Arthur le ministre avait tout le temps pour me préparer mon ouverture même vous faites ni sax ça? nga ne remaniement mais mon na continuité état mais euh, à une semaine de l'ouverture ñu ne dañuy la rencontre avec tous les IA définir les est-ce que vous ne pensez pas que le fait que Sénégal du masque ah, a est-ce que état làquwul ci loolu sax pour parce que xam ne day dépenser pour indi dans les écoles et puis le gros effectif moo fi nekk mu ànd ak askan wi ci li ñu gëm. man yaakaar naa mooy li ma doon wax sànq déjà amul enjeu de un parce qu'on a encore 9 mois pour attraper euh, le, coup. Mhm. De Et puis de deux, c'est un peu. Parce que l'école, c'est juste un microsystème. C'est-à-dire, c'est la société, mais au niveau de l'école. Microsystème. Donc, les gens qui sont mom la répercuté répercuter ci école bi ci hôpital bi université même ci biir mhm. donc tu vois c'est juste euh, euh, un exemple patent de ce qui se passe dans la société mais quand moi sol masque au contraire soo solee masque ça dañ lay xoolaat. ridicule da ridicule. Mhm. dañ dañ docteur aussi ah, wax né presque jeex na. presque alors que France ak il y a une deuxième vague. loolu problème de communication presque. presque beaucoup non. Moi, tax nag ba nit ñi bàyyee ko gën très bien parce que déjà dañoo foog ne mbas bi mhm. alors que euh, desna na dañoo ne tendance baissière mais on ne sait jamais Parce que fu mu jógee woon ah cas importé la Europe le jógee woon léegi anamu mon ngi ngi reprendre Europe.

mooy naka la xale yi nekkoon ci privé di delluwaat ci privé jàngee fa waa privé nee ñu xale yi foog ñu fay mars avril ak mais bi nga xam ne jànguñu parents yi ñu bëri nee na ñoom loolu munu xel munu koo nangu ñetteel bi gouvernement bi ñoo ne léegi man damay jox ndàmpaay waa privé parents yi jàpp ni ndàmpaay boobu mooy remplacer li nga xam moom lañ waroon fay ba kon bu leen kenn wax ne nañu fay li nga xam ne xale yi seen doom yi jànguñu ko

Nous avons été may euh, mm-hmm. en tant que président d'une euh, association des parents d'élèves euh, du privé catholique mm-hmm. mbas bi c'est vrai bu mu ñëwee dafa gàllankoor lu bëri donc dafa am ay ñu nga xam ont impacté wo ñu bëri impacté wo te bu impacté wo mënuñu woon fay scolarité oui, je ne bëgg pas ce que ñun fait, Chor, déggoon nous leen sànq ngeen wax avons euh, euh, gars yi yënguñu parce que nous, l'association des parents d'élèves nous pris les devants Je lay euh, rappeler que si nous oublions le 25, après tout juste enseignants privés catholiques nous avons fait dem grève le 9 juillet ñun association parents d'élèves privé catholique bu Ziguinchor ñoo dalal euh, sen syndicat bi waxtaan ak ñoom wax leen ne mun leen dem grève heure bi bay leen ñu ñun ñu régler problème bi ñu waxtaan ak ñom ñu nangu bu ñu nangué ñu dem waxtaan ak dideg bi mmh. dideg bi Euh, lan ngeen waxtaan ak ñoom ñu bañ dem grève. waaw ñu bañ dem grève boo waxtaanee mu bañ a dem grève am na loo tekki loxoom. voilà loolu loolu laa la laa nekk di wax. ni waaw mooy lan parce que ñu dem ñu dem daje ak di deg bi. Mhm. di deg bi euh, fay leen salaire euh, ñaari mois de salaire. Mhm. parce que yoroon na leen trois mois de salaire mu fay ñaari mois. ba pare bu ñu ñëwee ñu convoqué parents d'élèves yi si établissement yi yëpp établissement bu nekk mu convoqué parents d'élèves yi. expliquons expliquer parents de la vie. Nous avons affaire bi du question droit question sociale parce que nous, euh, nous ngi sommes ak ay ay euh, jàngalekat ñu nekk ci catholique Nous sommes pare nous catholiques. Nous suñu ñu nous leen suñu leen xam-xam ci examen nous ne leen xel nanguwul Nous sommes huissier mu ngi koy taxaw euh, euh, euh, boutiquier bi mu ngi taxaw mhm. koku bu ñëwee classe lan la fay jàngale mhm. du soti kon nañuy jàngalé kat yi ñu fay wéri ku nga xamné bas bi daf ko daf ko impacté mhm. mu dem gis gestionnaire yi mu waxtaan ak ñoom mu ñu ko moratoire très bien loolu fofu. foofu Arthur yow consommateur nga consommateur ñi yónni say doom ci école yi c'est de la consommation du savoir tey jii situation minimale yow noo ko dundee aussi parce que en réalité moratoire mais nguur gi am na ndàmpaay bu nga xam ne jox na ko école aussi. si si loolu laa sax bëgg ki parce que dafa am loolu wax sànq Cheikh il faut ma tontu si loolu ministre bi nga wax dafa ne parents d'élèves bi nañ dem porter plainte ministre bi weddiwaat na ko tey. nee na moom waxul loolu waxul na kenn dem porter plainte dafa jël ñu jéem a waxtaan à l'amiable. Mhm. ñu jub trouver benn terrain d'entente mais si biir lan la monsieur Honoré wax parce que tey jii yéen en tant que association des parents d'élèves ñun des consommateurs yi ànduñu si loolu xam nga lan moo am système privé bi daf lay jaay mi ngi mel ni ki da lay jaay ndox mi nga fay ko mu jaay la li nga jàng moom ngay fay loo jàngul waruloo ko fay tey boo xoolee texte yi ngeen bind mais mais mais yow tey imaginer man amoon na man gis naa benn cas boo xam ne ki fii à Ziguinchor benn parent d'élève boo xam ne ki da doon fay trois gosses

lan moo tax fayuñu leen te dañuy def la xaalis dañuy liggéey xaalis am nañu kees bu ñuy denc tey lan nañ nekk def dañ ne duñ jox benn élève certificat de scolarité fan nañ ko teg ministre bi loolu la wax ni loolu du yoon certificat de scolarité da nga am droit ñu jox la ko hmm. nga génne école boobu dem beneen école sa bulletin de note dañ la ko war a jox parce que fayoon nga nombre de mois yooyu man xam nga daan laa d'accord ñu fay mois de mars parce que jàng nañ mois de mars mm-hmm. mais lu tegu à partir de mois de mars bu ko benn parent de l'élève fay man maa ko wax waaw ça c'est le consommateur qui le dit man maa ko wax euh, ku si bëgg ku ko fayu li demal nga porte plainte professeur Benoît waxtaan bi dafa dafa am solo parce que Ziguinchor yëpp a ngi déglu àdduna bi ñuy déglu parce que dafa soxal askan wi bëri euh, tey ji situation bi ni mel naka lañ ko war a gérer c'est vrai que indi na ay problèmes yu bëri mm-hmm. amuñu ci woon euh, une certaine expérience moo ñu soog a dal mm-hmm et jour euh, ngi jur ay problèmes yu actuellement ni métti na ci ñëpp nag mhm. na parents d'élèves parce que mon fay na dañ ko d'ailleurs c'est l'argument des directeurs d'école dañ ko programme Le jaay mhm. programme bi ça va ça court sur 9 mois loolu lañ koy wax dañ ko mensualisation loolu juste c'est une facilité mhm. facilitation dañ ko ne yow dès le premier mois dès dès ton inscription hein, tu nous dois toute l'année am avons fait année bi tous les six mois dañu fay par six mois am na par mois, dañuy fay par mois mensualisation voilà c'est l'argument ba léegi am un parents d'élèves yu ñu comprendre l'eau. en tout cas argument je ne tout à je suis pas tout à fait d'accord avec ça mm-hmm. c'est vrai que mbass mi dab nañu école privée privée là donc euh, mon euh, investisseur mm-hmm. ah, ce sont des investisseurs ce sont des porteurs de projets. teg en place une école donc ils s'attendent à ce que n'est-ce pas muy am bénéfices ou bien en tout cas muy ñu des ñu ñu mëna fay seen charge fixe yi et cetera donc metti na ci ñep metti na ci parents d'élèves bo xamante ni euh, toog na 5 mois doomam jàngul kooku soo ko nee fayal alors que dom ji jangul mom mënu ko comprendre metti na tamit ci euh, que l'employeur qui employeur école parce que tamit il a des charges fixes yo ne koy xaar mhm. mais je suis pas pour euh, euh, ay porter plainte judiciarisation qu'on ne judiciarise pas ces questions là mhm. nañ tok pencho mhm. vraiment pour trouver la meilleure solution pour que élèves la suñu nous yi ñu mañ ñu bañ payer les pots cassés très bien mais Léonie état bi bu des subvention à l'école privée est-ce que l'on warul de l'école privée dans une situation ndax ñu génne koppar ne nañ ko jox école privée yi du seen rafetaay du leneen mais li nga xam le manque à gagner bi ñu amoon moom la ñu jox pour dimbali leen est-ce que loolu mën na remplacer un peu ñi xam ne kat ñoom tam war nañoo bokk ci effort de guerre boobu considérer ko comme effort de guerre pour que ñëpp mën a déggoo ñi nga xam ne ñàkk nañu mbas ñëpp la laal ñu mën a bokk rek ndax jàmm ne ñooy ñu continuer jàng bi ok merci cher euh, état bi ñaata la jox école privée yi ah, wax nañ ko de honor ñaata ngeen jot 12 milliards euh, euh, problème bi foofu la nekk 12 milliards alors que état bi ils ont fait une effet euh, d'annonce 12 milliards la mais au fini ils ont donné une première tranche 1 milliard 500 pour toutes les écoles privées que ce soit catholique et laïque mhm. ensuite ils sont revenus ils ont redonné un autre milliard ça fait 3 milliards. voilà, donc je peux continuer. J'avais ah, attendez, ah, attendez je termine attendez je termine parce que nous ngi wax état dafa jox pays, pour est-ce que jox na leen milliard milliards école privée parce que du pub catholique rek wala yeneen qui de confession c'est toutes les écoles privées du Sénégal a mm-hmm. ñaata école privée non am Sénégal les écoles privées reconnues par reconnaître parce que ñu ngi yor ay doomu sénégalais di leen jàngal donc war nañu am parce que si ma mémoire est bonne su fekkee ne est ma dafa am benn kii qui ñu leen joxoon c'était dérisoire Moi, comme aide bi ñu joxoon presse rek ku nekk ñaata la amoon presse aide bu ñu aussi les artistes ku nekk ñaata la amoon bu fekkee ne da nga dëgg turu milliards yi da nga defee ne xaalis la mais nañ ko séddoo ba pare buñ ko séddoo ba paré ku nek ñaata nga am est-ce que aide bobu war na tax ñu né duñ leen fay comme niñ ko waxé gis nga chaque tout mois commencé est redevable bo commencé mois c'est comme niñ ko waxé bo commencé année bi sax da nga koy fay c'est vrai que ñu non dama dama commencé par mois ma ñëw ci année année boo ko commencé da koy fay parce que euh, c'est euh, metina metina man j'ai j'ai deux élèves fayna c'est pas parce que dama am khalis mais ñom dañu am charge non seulement personnel bi mais yenen charge yi nga xamantene entreprise bo gis rek dafa am ay charge ñun ñoo wara a compréhension comme ni ko waxé parce que ñi leen di jàngal ay nit ño xamantene ñu ngi ci biir société bi ku ñu joxul salaire est-ce que dina tal jàngal sa doom du ko tal a jàngal donc moo tax. parentele bu bass bi japp nak ñu wañi salaire am justement peut être mbas mi taxna ba mom mu ñàkk liggéeyam voilà mais ñi nga xam ñi nga xam dañu wañi sax mais entreprise yenn entreprise dañu wàññi seen salaire waaw non non mom la wax rek motax ñuy né rek pour discussion bi ñu xol ñu ñuy alléger discussion bi depuis le mois de mars lañ ko commencé avec les écoles les associations de parents d'élèves discuté avec les les écoles privées depuis le mois de mars d'ailleurs loolu indi subvention bobu leen état bi ñëk a jox kii déglu ma Arthur tu n'as pas la parole Arthur tu n'as pas la parole xam nga

xooluñu fédération ak fédération bi nga xam ne war leen mhm. parents parce que fédération bi euh, yor pale euh, parents ma daaneel fii rek ma daaneel Arthur Arthur c'est pas parce que nekk nga consommateur rek nga war di euh, parfois porter yeneen justement non consommateur même éco privé c'est des consommateurs parce que ñoom yow imagine le parent d'élève bu ñu yàq salaire am kooku mbas daf ko tamit impacté oui honoré waaw ñu def honoré muy nekk éclairage si c'est xam nga lu ñuy wax lu ñuy wax fii euh, ah, Arthur. il a donné un exemple. Mhm. Et moi, je peux lui donner d'autres exemples contraires à ce qu'il a donné. Très bien. affaire waxtane la. par exemple ay 3 mois ay 4 mois ñu ñooñu ay arrière ñu nga avant avant. au mois de février man bu baax nous nga des difficultés. Nous des difficultés. difficulté avons ñëw gis euh, gestionnaire bi ne temps mais dañuy accepter. c'est du social. c'est du social. Mhm. dañuy accepter am mais est-ce que le la actuellement. cest dire que non xam nga xam nga problème affaire il faut nous mhm. Nous bu man tous les parents d'élèves qui m'ont appelé buma waxtane ak ñom dañoo nangu dem fay parce que dañoo comprendre situation les 3 milliards là gis nga boko par école dans toutes les écoles xam nga lu muy joxe day am ay école ñu nga est-ce que 875 fait une mensualité la deuxième chose c'est quoi c'est que nous avons signé un contrat avec l'école le contrat ne parle pas de mensualité. Le contrat parle de scolarité. Mhm. Tu dois faire la scolarité jusqu'à date issue. Mhm. C'est-à-dire d'octobre jusqu'en juin. Les gens parents, nous avons mois de juin pour nous faire en avance. Parce que le mois de juin, fait quoi en avance. Nous avons école, nous avons le mois de juin. Avec le mhm. contrat, dis école privée, vous inscrirez sa dôme au mois d'octobre nga am affectation au mois de mars nga dem nga yóbbu sa dom di nga fay mois de euh, yenen mois yu yu des ba juin di nga ko fay bo faree nga doga a sa dom loolu mo am nak loolu mo am bo ñëwee affectation man dam lay jox sama exemple man buma ma affectation affectation fii Ziguinchor sama dom mois janvier la fi ñëw mais bu mu dama fay octobre ba janvier loolu moo am ci ci contrat bii kon gars yi nañuy def nang, gis justice bu ñuy wax man je ne je ne conseille pas aux parents d'élèves d'aller en justice mhm. parce que ça deviendra un climat délétère entre ñoom ak école bi te nous sommes des partenaires on on dañoo yóbbu suñu doom yi pour ñu jàngal leen. mais certificat de scolarité certificat de scolarité c'est ce que am nañu droit joxe. je termine je termine je termine.

wax naa leen sànq que ku nga xam ne bas bi laal na mais on a des solutions les portes ne sont pas fermées am fi fii instant yi si école yi nga inscription dañ leen dañ leen ko kii ñu ne leen ngeen dugal ko si mois étalé étalé ko mhm. mais nga fay ñaari mois yu yu des mhm. xam nga c'est ce fait. Est-ce que l'école, par exemple, peut jouer la transparence C'est-à-dire que l'État a donné Et à partir de ça, nous avons fait que nous mensualité euh, juin ou mois d'avril, 20 000 francs Comme l'État a donné de voilà, finalement, ce sera 10 000 ou 5 000 que lolu aussi solution la. non xam nga xam nga xam dam lay dam lay wax la fi luñu joxé buñ ko buñ ko partagé par élève. 800 francs lay doon. très bien donc euh, donc on aurait. ñuy loolu man la On aurait. ay kayit yu leer la ko wax. honoré c'est vrai que c'est bon c'est bon de faire tous ces calculs là mais comme ni ko wax mo si nek euh, situation bi nga xamné amna

ak ci fukki fan ci weeru euh, novembre bi ñu nekk ni ci aduna àdduna wërngal këpp na fi ci diwaanu Sigicoor magal nañ ko nu mu gën a ci kanamu comme zone wayé bés boobu la ñi nga xamné moy groupe média du sud jël pour won askan wi lenn lu nga xam ne dafa nëbb woon muy ab ancien combattant bu nga xamné bokkon na ci li nga xam ñoo taxawaloon France ñu dem ba yaakaar ni na aduna bañ ko fété ay droit am mais GMS dem na ba dajeeg mom ci ben gox xan bu mu nekk mu ngi am 102 ans mom ci bopam mo nangou Euh, waxtaan ak GMS ba xamal jafe-jafe jundu, nga mu koy dund te ñu war wax askan wi dañu war a gëstuwaat ndax armée bu ko koy wax wa nga xalaataat ancien combattant yi ñi ànd portrait Mohamed Sagna. Kandiman ab dëkk la bu nekk ci département bu Bignona ci région bu Ziguinchor. mu nekk dëkk noppalukaay Mamadou Diédhiou mu nekkoon ancien combattant bi nga xamante ba tey mu ngi dund. kooku lu toll ak ñaari at. kooku nga xamante ne fekk na deuxième guerre mondiale 39 45. waaye tey France ñu mu bokkaloon ci xeex bi yaakaaroon nañ ni génn na àdduna ba tax na pension bu mu doon jot dagg nañ ko gannaaw bu mu bindee ay bataaxal yónnee ko kilifa yu nekk ca France ak fii ci diwaanu Sénégal dara mujjul antu. Matur su bi yenu yoolam yo daas dafa jotatuma sama payoor ñetti weer yu ne dama xamul ndax dañ ko dagg walla def naa lu ne ndax mën a jot sama koppar waaye àntuwul ñun nag France moo ñu doon fay te lu ñu doon jot dafa néew loolu ndax boo ko xoolee juróomi fukki junni dong la. ko tàmmee wu ñu ko waxu waxu di eh, ca France.

te lenn rek laa yaakaaroon mooy yàlla mi ma aar bi nga xamee nag sandi woon nañ ay ndënd ci allemagne ba yaakaaroon ne rey nañ hitler waaye dañu jékki-jékki gis na loolu nag manqué allemagne allemagne foog nga dañu and fa wala ko buddee kama xumu umu leer umu leer ko buddee ak la éclaire éclaire anantu ko ñàkk teewaayam ci lekkool moo taxoon mu dugg ci service militaire waaye li ni mel papam ànd ci woon mu nekkoon ki nga xamante ne bëggoon na trop défendre couleur dëkkam looloo taxoon mu sàkku ci ñaan ci baayam mi nga xamante ne ci mujjantal ba mu na ko jox fa weer ngir mu dugg ci armée bi wakkaame njëriñ ka l'armée man nag jàng looloo tax sax mu dugg ci li nga xam ne mooy l'armée ndax

camp de Thiaroye mhm. je pense que fulaalu ñu euh, tirailleurs sénégalais mhm. depuis lors man déggoon naa seen combat yi nag que ñu am même traitement salarial mhm. mais ba nous ñi anciens combattants en France nous ah, ñooy gën a euh, am euh, en termes de salaire que ñi nekk ñi nekk Afrique alors qu'ils ont été sur le même champ de combat mm -hmm. ils ont enduré les mêmes épreuves etc je mm-hmm. pense que côté bon, noonu traitement salarial bi war nañ ko xoolaat euh, vraiment pour ceux qui nous restent d'anciens combattants non seulement ñoom donc duñu duñu fulaal suñu mag mais nous ñu bëgg a dem foofu noonu dañ leen di gàntal visa moi tax jeunes nous ñoom nous ñoom ñuy jël gaal gi di mm-hmm. jël euh, désert bi di bëgg euh, donc je pense que c'est c'est nous ñoom daal comme sauver nañ leen mm-hmm d'accord Hitler ak ñoom ñoom C'est un africain c'est mhm. un territoire c'est un donc euh, et je pense que c'est un peu euh, c'est c'est dommage Très euh, bien. et je pense que par rapport à ça aussi moi pour rebondir sur l'introduction, introduction vous cinq, bi mhm. journée des forces armées je pense que aussi c'est vrai que pratiquement année bi amna ay journée de mhm. journée de telle chose mais il faut ñu arrêter euh, à un moment donné parce que lool xaalis la xaalis boo mënoon dugg feneen ah di woné voilà suñu doole ngi ni suñu lée ni suñu mën mën nañu ko def euh, dans un autre contexte ou bien autrement mhm. que di woné né voilà avec les défilés et cetera mën nañ ko wane neneen te dañ si ah, dépassage bu dul jeex une armée euh, donc euh, avec une euh, vision sociale boo xam ne ñu ne par exemple journée du des forces armées ñu dem ñu ne mm-hmm. voilà on va faire des consultations et cetera dans des dans des établissements dans des quartiers et cetera je pense que on doit aller plus vers le social que pour wane la répression wane nañ dañu am doole suñ char yaa ngi nii suñu lii ngi nii et cetera jërëjëf jërëjëf Léonie ban jàngat nga am ci li nga dégg tey ji ci góor gi di wuyoo ci turu Moustapha Diédhiou wala Mamadou Diédhiou Mamadou Diédhiou merci cher bon si di désolé wu rek di désolé wu du fait que mu dem ki nu mu tuddati euh, tayle bakkanam mhm. ba mu rëcca ñew mhm. té war fayatuñ ko mhm. man dama yaakaar ni aussi état amna part de responsabilité parce que mom amna famille est-ce que famille bi démarche la famille bi def aussi pour xam lan mo xew ba joxatuñ ko xaliss bi ak état bi aussi est-ce que l'État a informé Il y a une démarche aussi mhm. pour qui Parce que nous aussi, je me, bon, peut-être que ce n'est pas tellement lié, mais je me dis que nous faisons liguer, à la retraite, si retraite, de temps en temps, il faut que nous faire papier. Est-ce que papier aussi qui réactualisés mhm. Donc, nous sommes avec nous, devons état aussi jappelé ko pour nous. parce que tout monde aussi quoi que l'on dise bu la dans les fay très bien donc da lay fay. Mhm. Euh, li euh, euh, professeur wax ànd ci. parce que allez armée dafa nek c'est vrai que dañ koy défendre le concept armée nation. Mhm. dañ dé œuvrer dans le social. Mhm. mais filles, je pense que ñu jël en charge. parce que bëri na ay victimes. ñi nga tout le temps dañuy dañuy plaindre. dañuy plaindre que l'État appelé wu len donc force de la qui armée defe un jour bobu war na dem nemmeeku ñi nga xamante ne du loxo nen de yóbbul leen li nga xamante ne xëy na moom la ñuy defee seen i noos mhm. ñu ne ah xaaral suñu moroom yi ñu nekkaloon te ñu tombé dans le champ de euh, kii ci xare bi mhm. soit seen famille wala ñu nekk handicapé ñu ñu dem xool leen yóbbul leen dara pour won leen que Mhm. témoigner leen que c'est une euh, mhm. considération je pense que nous aussi on nañ di mhm. parce que euh, y a beaucoup de euh, militaires qui se plaignent dañu dem ba handicapé parce que dañu sauter sur une mine ou wala petit combat bi dafa un problème donc nous aussi il faut que même terme sud bi un problème terme sud bi am je pense qu'il y avait des militaires là-bas donc lan nous ñu def pour dimbale très bien merci beaucoup merci Arthur waaw non damay commencer si Benoît lu mu doon si journée 2 journée 2 est-ce que Benoît xam que journée journée de de l'armée bonne bonne date lay tombée c'est le 11 novembre. Hmm, armistice. armistice Fête France. Hmm, hmm. donc nous sommes sous colonisation ba légui dañuy nous dañuy défiler France. c'est-à-dire défilé wuñu pour pour non c'est-à-dire journée 2 te alors que armée muy wone force am jour fête fête fête de fête de l'indépendance fête de l'indépendance doy na si armée pour mu wone pour mu wone say say say motuwaay. Mhm. léppam fête de l'indépendance. mais fête de l'indépendance dañuy defat mhm. c'est-à-dire armistice bi France kii nous sommes sous colonisation France ñu ngi défilé France ñun ñu leen di défilé te France sa défilé dul ñun ñoo leen di défilé mhm. mais tey da ngay gis si euh, góor gi nga wax nii ancien combattant bi suñu maam ji tey man lu may. ñaan mbokam yi ko jege moy ñu daal di fexe jël dossier am indi ko jege commandant de zone bi. ñu xol lan la ci def parce que il faut que tamit ñu daal di xool ndax commandant de zone bi def na ci dara wala def ci dara féké nak armée sénégalaise moko bayyi en rade boobu mun nañu dal ci kaw armée sénégalaise parce que armée sénégalaise moko wara war fu mu né ni mom très bien ba nga ne pension ban la doon jot mu ko ne ko jot. Mhm. buñ ko daggee armée sénégalaise il faut mu daal si am droit de droit de qui mhm. de regard ci mhm. lolu

nit bonnet nek di liggéey ngay feeku tant que woné wo genn indi wo certificat de décès ñeu déposé ko kenn du dagg sa salaire mhm. kon euh, manque de respect à nos vaillants anciens combattants et état bi des def je sais pas comme nous mu euh, ses proches d'ailleurs n'aura top dossier bi defar dossier bi yónni ko fii comme euh, comme zone bi nous euh, kii ko déposer ko comme ça ñu xam lu ñuy def parce que li c'est pas normal 102 ans ba légui yow nga toog ay weer munoo jot xaalis lan ngay dundé lan ngay dundé té comme nous ko waxé tamet euh, ki journée des forces armées vraiment surtout fii Ziguinchor. Mhm. nu ñu koy défé mo baxul très bien deux jours durant si wet hôpital.

le commandant commandant de zone bi ngay commencé parce que moom moo yor Bignona. Mhm. moom moo yor Ziguinchor moom moo war a dirigeante l'affaire parce que mënuñu ne ni ki le gars il est mort te ñoom gisuñu certificat de décès. Mhm. mais ancien combattant yi dañuy défilé chaque kii te armée moo leen di woo ñoom bu ñuy def bu amee ah défilé bu armée mënut am tey yow boo doon rado bu doon marché dañuy woo ancien combattant yi. doo leen gis <laughs> consommateur mais mais Léonie àndul ak yow ci loolu ah, Euh, condamné armée. Mm-hmm. mais est-ce que ñom armée dafa yëg démarche yi. fi ko wara déposer est-ce que déposer nañu ko. non la wax nee doomam. non doom ñi déposer na fu mu war a déposé waaw mais on a toutes les informations. effectivement fu mu war est-ce que foofu la. mais comme GMS comme GMS def na dox bi be indi ki won ko ñepp gis ko atuna gis ko yakar nañ ne. ñepp ñu daan ay décideur dafa bax sax parce que nee naa la dafa tomber armistice. voilà léegi décideurs yi décideurs yi war nañoo mën a jóg tey jii kat li mom du yone voilà euh, donc dañuy jàll ci li nga dernière euh, partie bi mooy ñu wax ci question d'actualité mais benn la ñu tànn mooy élection Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Réou, kenn ki may wax ki may bañ wax la Arthur Diagne Arthur Diagne Côte d'Ivoire de bi jaxasoo na njiitu troisième mandat mu gagné à plus de 90 Mais pareil, ba pare mu eu... ñu tëj ñi nga xam ñu nekk opposition ñi ku nekk ñi ñi gàll gàllal sa kër waroon mën a génn ba pare mu ne leen kaa waxtaan démb mu waxtaan ak Bédié ci ab hôtel mais Arthur loolu sénégalais comprendre lan moo xew Côte d'Ivoire exactement naka la ñu jàngatee loolu. dañ siy dolli Bédié xëy tey woo opposition bi di waxtaan ak

ñoom seen part de responsabilité lañ soxla ñoom ku nekk da ngay ne man maa war a lekk loolu Alpha Blondy di woy si woyam bu bees bi ku nekk da ngay dem ne léegi man sama tuuru lekk la mhm. mu ne nos dirigeants ñi ñuy jiite nii duñ duñu indi benn programme de suite duñu indi dara ku nekk da ngay ne lu ma war a lekk daf bu mais Alassane Ouattara bu mu koy woolu daf ko woo jàkkaarloog télé national jàkkaarloog le peuple ivoirien la le monde mu ko ni conseil constitutionnel joxe na décision élection yi jeex mais est-ce que li le complot euh, euh, donc Arthur parce que c'est ah grand frère mon nene Bété. mais de toute façon c'est pour juste euh, paraphraser beneen Wekat, Tiken Fakoli. on a tout compris on a tout compris je pense que tout ça s'est fait au détriment du peuple c'est les mêmes qui sont là depuis longtemps ils sont là depuis avec euh, Oufet boigny mm-hmm. ce sont les mêmes c'est la même classe politique donc si nous suñu en mode, je pense que la population le peuple comme nous le ko nous sont les grands perdants hein, qu'ils gèrent leurs problèmes qui laisse le peuple, n'est-ce pas, vaquer à ses occupations. Mm -hmm. Je mhm. pense que loolu mhm. hein, qui laisse le peuple vaquer à ses occupations parce que on a tout compris. parce que opposition yi dem nañ Béjé. finalement Béjé dem waxtaan ak moom est-ce que euh, Léonie lii. comme si, rek loolu. troisième mandat troisième mandat troisième mandat mooy jur loolu parce que Idrissa Seck waxtaan ak Macky Sall ba ce sont les conséquences Guinée muy Côte d'Ivoire et bientôt peut-être au Sénégal. troisième mandat loolu rek lay jur. waxtaan bi waxtaan parce mhm. que comme niñ koy wax faral di waxee rek CEDEAO CEDEAO syndicat des chefs de l'État xam nga syndicat syndicat yi dañuy défendre seen intérêt donc président yi noonu la ñuy demee xam nga lim nekk Côte d'Ivoire am na fi ak reme xaw na nuroo ak li fi am ci remaniement ministère yi bi nga xamante ne ñu ko doon xaar te mu accusé. xam nga keroog moo tax ma ne la c'est un non événement parce que li nga xam li muy indi du changer lu bëre ci li fi amoon mm-hmm. loolu moo tax ma ne woon keroog un non événement parce que loo xamante ne

On na dem keneen rek jarul di am nga lecture ci mais tout ça c'est euh, il fallait s'attendre à ça hein. c'est des africains c'est les hommes politiques africains depuis les, années des indépendances jusqu'à aujourd'hui c'est eux qui sont là nous sommes fi mentalité bobu la am toujours ñom euh, pour nous, nous avons diriger toujours mhm. ñom ñoo nar a jaar ci kaw peuple bi nous, malheureusement ñun peuple bi duñu comprendre xam lo lay wax souvent nit ñi mané len man fuma ma ni tay tey wacc ci tali pour xeex pour politicien parce que damay xex wacc ci tali pour xex ko suba mu war ma du ko def. kon yow gis nga ni waxtan bi c'était pas important. non waxtan waxtan bi c'est pour mieux diviser pour mieux régner xam nga wa opposition Côte d'Ivoire kii la ñu tegoon ci kanam. Mhm. mu woo ko jël ko légui sen opposition bi kan mo fa des. voilà gis nga woon voilà gis nga léegi. loolu la l'autre la Guinée suñu ah. frère bi Guinée moom la réussir. Mhm. te nee naa la fii keroog Guinée bu jàllee Côte d'Ivoire jàll kan moo si tegu. xaw ma beneen mooy mhm. Patrice Talon. Mhm. si troisième mandat après nañu doog a ñëw nag si ñun. moo tax ma ne moo tax ma ne leen le président Macky Sall n'a di wax ma ne mun na am du dëppoo di wax troisième mandat. ndax mu lan mooy tax du wax troisième mandat li lay xaar. manam yow Côte d'Ivoire am am na am na jàngat bëri bu ci am yow. test yeb yëpp lay xool. très bien mais Cissé. oui c'est il uh-huh. faut il faut se rappeler que. Euh, Côte d'Ivoire tamit Côte d'Ivoire c'est une colonie française. te gis nga temps yele démb xawma ndax deug la xawma mais lire naa ko ci net bi que Guillaume Soro a été expulsé de la France. expulsé waaw. loolu laa liir si net bi démb euh, intox la démb xaw ma ndax intox euh, jii Bédié mi moo jiite woon opposition Côte na fekk Alassane Ouattara Ouattara waxtaan nañu jóge na fa yónni na ko waxtaan ak moom mu fekkee ndey jur jàmm pour Côte d'Ivoire jàmm jooju mooy continuer di gérer li ñu bañoon ñu bëri nag ñàkk seen bakkan malheureusement c'est le peuple qui a montré day seddu malheureusement l'opposition aussi day seddu ñan ñoo demoon gis nga candidat yi parce que budget mooy nekk facilitateur bi schéma bi loolu la budget moom moo nekkoon moom moo nekkoon l'homme fort moo doon diriger opposition si gannaaw moo moo lancé woon boycott bi moo tax bu ñuy téye ñëpp la ñu téye moom ñu def ko résidence surveillée këram lañ ko kii te le ministre de la justice bu mu def dafa wax lu leer mu ne béjjee mag la ak âge am ñu ko jël di ko dangar dangar di ko yóbbu prison mhm. ndax mag la mais ñeneen ñi lu ñu wax gouvernement parallèle moo tax ñu téye leen yóbbu leen mhm. léegi yóbbu nañ leen woo na béjjee woowu ko si palais woowu ko ministère hôtel la ko yóbbu waxtaan nañ si hôtel mais c'est comme quand Wade et Macky Sall se sont discutés euh, euh, à la mosquée <laughs> boobu image rek moo feeñaat fii Euh, kon nak euh, Arthur di la gërëm bu baax a baax di fàttali yow chroniqueur nga ci émission euh, Jàmbakatan fii ci GMS FM di gërëm professeur Benoît Tine di ko vraiment sargal ci lu muy tok alxames bu nek di ñu indil ay ay xibar xibaar aussi ay lepp lu nga xamne rek mom moy xelam ci yi nga xamne ne xew muy fee de société waaye aussi ak politique lepp li nga xamne ne ñu koy jëng di ci yëngu. Euh, rek euh, ñi ñi si dem bu baax a baax euh, Léonie yow it di la gërëm bu baax a baax xëj na nekk nga ki nga xam ne chroniqueur nga ci émission bi aussi rek ñi ñëw ci yow honoré di la gërëm parce que yow 16 heures presque lañ la woo mais ñëw nga teew parce que da nga gëm li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne moom mooy système mais nag li ñuy wax nii yëpp am na si len li nga xam ne buñ ko waxul vraiment dinañu raté le coche moy xalé yi nga à ne tey ñu ngi ñak seen bakkan ci géej bi réseaux sociaux yi ñom ñoo toog ne nañu def deuil national plus de 400 jeunes 400 après 500 jeunes yu dee ci géej bi taxul Sénégal taxawal deuil national mais bis ni que consommateurs yi gis ngeen ni réseaux sociaux yi ñu ngi ñaan ñëpp taxawal ab deuil national virtuel ci réseaux sociaux yi tour de table rapidement rek ban jàngat ngeen am ci woote boobu Benoît vous êtes sociologue. waaw immigration moom ñoo ngi ciy wax depuis euh, des émissions mënuñu ko jeexal sujet bu euh, bu large la. Mhm. je pense que euh, c'était un signal d'alarme pour woon gouvernement que bi que ne jeunes yi ñoom ñoo ngi xaar xëy comme je disais, comme gis nañ il ñoo ngi passer à remaniement etc. voilà ils ont pris la responsabilité donc j'ai mis outil outils euh, tekki mhm. mhm. donc euh, je pense que euh, initiative de la base c'est une bonne chose une initiative salutaire parce que je pense que ba président ou gouvernement du Sénégal taxawul mu exactement mhm. clairement ce qu'il en est par rapport à l'immigration ba politique migratoire du Sénégal amul politique migratoire jusqu'à présent Frontex moi li a localisation des frontières européennes jusqu'en Afrique, c'est-à-dire que nous euh, dañuy armer euh, les forces de défense et de sécurité en Afrique comme ça nous ñu xeex euh, le phénomène à la base. Mm-hmm. Moi, Frontex moi, waral nous am ay vedettes ci biir intercepter pirogues etc. Mm-hmm. donc je pense que c'est une bonne chose. donc je de sur la toile ah, en attendant peut-être que voilà que gouvernement jël responsabilité et puis il phénomène bon non, parce que je n'y je sais que ni ki je ne pense pas que ni ki état bi dina def journée de national peut-être sur la toile parce que kooku c'est des c'est des c'est des c'est les blogueurs avec gars yi nekk ci réseaux sociaux yi ñoom ñoo ko initié bon gis ni ki suñuy suñuy naataango suñuy rakk suñuy mag suñuy tante parce que am na façon ñëpp a ci nekk classe sociale yëpp a ci nekk parce que tey lu ñu munti wax ci immigration bi xam nga lan moo gën bon Afrique dafa war avec les ambassadeurs da ngay déposer tu as tous tes papiers école mi ngi tijji nga am pré-inscription en France que déposer ces dossiers. ñu ne la da fay année scolaire bi yëpp def sa réservation d'hôtel sa réservation d'hôtel fi ngay dal nga def lépp indi déposer def ce caution garantie tout Que t'es ko ambassade ñu ne la may ñu la visa ban solution les étudiants étudiant am mm-hmm. rêve brisé bëggoon dem sàkku ji xam-xam ce qui veut dire ambassade bi te du la delloo yow caution bi nga déposé woon. Mhm. école bi nga fay du la ko delloo. amoo fenn foo ko jooyee. Mhm. nga perte comme ça moo tax dañuy wax ay 500000 la booy perte non am na ñoo xam ni c'est des milliards la ñu perdre pour dem jàngi wax wuti xam-xam. Mhm. tey dañuy dañuy ne ñoom ba ñu perte loolu dañ ne dee nañ. léegi lan moo ci des bu ñu gisee yoon boobu dañuy ne nañ jàpp si école boobu. reprendre suñuy droit tey donc je pense que war nañu xool ambassade ku dem ba nga déposer pour sa visa amulo visa ñu daloo la sa xaalis parce que munoo nga déposer pour visa daloo ñu sa xaalis mais xaalis boobu yëpp ñuy dajalé buñ ko dajalé ñaata la. très bien ñaata la ambassade di am. très bien mais journée de deuil.

twitter bi nga xamne mo président di utiliser ñun ñëpp ñu bind fa euh, euh, paix à nos morts. jërëjëf jamais ça. Euh, Léonie lan lan nga ci xalat journée de deuil national mais ci ci deuil national ça, mais deuil sur la toile. Mhm. voilà merci dama yaakaar ni rek comme niñ koy waxee la nature a horreur du vide. très bien comme état xalaatul té c'est ses fils mhm. domam ay domam ñoo génn adina ci ay conditions yu ñëpp raf euh, métitlu mhm. donc mu am ñoo xamante ne dañu yaakaar il faut que ñu défaral leen un deuil national Très bien. parce que ay citoyen lañu mhm. ci dëkk bi lañu bokk il faut nit ñi ni taxaw xalaat leen ñaanal leen donc comme état defuko mu am ñuko décidé def man kay ngi rafetlu Très bien mais il faut que état aussi comme niñ ko waxé mu délo si boppam

créer ay conditions yo xamantene ku nek da ngay utal sa bop xëy merci beaucoup euh, Honoré ñi jeexale ak yow ci mbir mi est-ce que euh, journée deuil national boobu ban sens nako jox est-ce que war bon, jangat suñu bop suñu comportement bonne initiative la bonne initiative la quand état bi bu deful euh, bu deful dara bon xam nga ñun en tant que citoyen mënuñu décréter nii journée nationale mm-hmm. mun nañ ko def si si les réseaux sociaux mm-hmm. té lolu ñu jël initiative bobu vraiment ma ngi leen di saluer on ngi dû saluer mais Tamet, wax euh, les sociologues là il faut ñu jàngalaat ñu jàngaat encore suñu société. Mhm. parce que suñu société tey lan moo si en avant le savoir avoir. Comport, mhm. là nous def en avant. loolu mooy indi lii yëpp. parce que tey boo nekkee si famille ça boo amul xaalis copor, quel que soit ni nga ko amee boo amul koppor kenn du la même si tu es l'aîné de la famille le plus jeune qui a l'argent moom la ñuy déglu Donc, vraiment société il faut ñu xoolaat suñu bopp parce que quoi qu'on puisse dire société bi pousse souvent c'est vrai que l'État bi deful le ko mais mais société bi pousse niti pour nous mun Le président bi dafa profiter de cette journée armée nationale pour voir ces affaires très bien def un discours fort vraiment si Jerejef, honoré kon a ci kàddu yu rafet yi la ñuy euh, tëjee suñu waxtaanu tey ji muy jàmbakatam Katan émission bu nga xam ne alxames bu nekk dañ leen koy may fii ci groupe média du sud waaye ci réseaux sociaux yi nga xam ne euh, ñu ngi am suñu plateforme foofu ngeen koy seetaan di gërëm bu baax a baax technicien yi nga xam ne ñoo tax ñëpp di ñu seetaan di ñu déglu ñi nekk ci régie bi ñi nekk ci studio bi ak ñun ci plateau bi euh, gërëm it suñu invité ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla fu ñu mënta nekk ci àdduna ñu ñuy suivre di ñu encourager di ñu poser seen question ñoom it ñu ngi di sargal di nuyu aussi suñu kilifa di euh, Alassane sar mi nga xam ne moom moo sanc sanc samp li nga xam ne mooy jumtukaay bi nga xam tey jëf nañu tax di wax ak askan wi di ko ñaanal li nga xam ne rek mooy Euh, gudd fan wér gu mën ko al tal ko te di ko def pour askan wi kon di leen gërëm bu baax a baax jox leen dig daje alxames bi di ñëw wasalaam.